gis nañ li nga xam ni noonu la réew mi di doxe di ko Macky Sall jëlee ba léegi nga xam ni gis nañ ni dëkk ak maandu tumuranke nañ lool ci réew mi li nga xamante ni mooy suñu doole ñun ñëpp ñu jox ko ko ngir mu aar ñi ci aar ci askan wi aar ci waa réew mi mu jël doole joojee di ko jëfandikoo ngir nërmeel ci bànqaas yi nga xame institution yi nga xamante ni ñoo ŋànk mu jël doole joojee di ko jëfandikoo ngir ñi nga xamante ni ñoo nekk ci langue politique bi mën a jàkkaarloo ak ñoom suba ci wàllu politique ndax ci démocratie lañu ne mu jaay leen doole ñoo ñee ñi ci ëpp tey jii mu tëj leen kaso bi fi Macky nekkee ak léegi prisonnier politique yi ëpp nañu 40 ñenn ñi sax mu génn leen réew mi ñu dem ba gis ni réew mi nekkatul ci démocratie fim mu toll nii xanaa démocratie lay tudd wala jaay doole karasi waaye moom démocratie moom génn nañ ca ndaxte yeeyaa jaame moomee nga xam ni ci démocratie sax la nekkoon moo ko tane ndax moom ñëpp xamoon na ni nekkul ci démocratie waaye moom tey jii fexe na ba nit ñi amatuñu yaakaar ci fa ma xam ne nekk benn ndax fa ma xam ne nekk benn fala daan atte gis nañ ni atte boobu tey jii sooxe na torop loolu moo waral ñu woote woote bi xam ni réew mi wees na réew moo xamante ni dañuy def dañuy def ay jaam gàcc bu mi yi nga xamante ni Macky Sall ràng na ko ci suñu loos ràng ko ci suñuy loxo takk ko suñuy tànk bu mi gàcce yooyu dañ ko bëgg a dagg ngir moom suñu bopp ngir ñu daal di libre moo tax ñu taxawal front bu bees bu tudd dog buumi gàcce dog buumi gàcce front boobu li ko yitteel mooy ñu fexe ba bépp sénégalais bu bind am sa carte nationale d'identité nga jot ci mën a wate ndaxte seetlu nañ ni carte euh, carte d'identité yi li ci ëpp ñu ngi ko rënk ndax bëgguñu askan wi jot ci mooy li xewoon Touba mooy li xewoon ndakaar mooy li xewoon cees ci élection yi passé ñaareel bi nga xam ni moo tax a jóg dog bu muy gàcce mooy ministre de l'intérieur président Macky Sall bii fi nekk ñu koy wax Aly Ngouille Ndiaye na démissionné ndax xam ni moom amul dayoo mën organisé organiser élection yoo xamante ni dina jaar ci yoon élection yu sell ñetteelu poñ ci poñ poñ poñ bi nga xamante ni moo ñuy yitteel mooy li nga xamante ni moom la ñuy tuddee Sénat commission électorale nationale autonome Sénat boobu tey jii amul dayoo mën a organiser élection yu sell ci Sénégal moo tax dañu jàpp ni Sénat boobu dañ ko war a daaneel ñu taxawal kuréel gu bees boo xam une haute autorité chargée de réguler la démocratie et d'organiser les élections lay doon ñeenteelu poñ bi mooy li nga xam ne moom la ñu tuddee conseil constitutionnel te gis nañ ne amatul solo fi mu toll nii ci réew mi ndaxte conseil constitutionnel la boo xamante ni li ëpp solo ci mandarga la mooy il est il est toujours indépendant conseil constitutionnel bobu aussi toujours incompétent kon conseil constitutionnel bobu japp nañ ni aussi amatu fi place nañu ko daaneel ñu taxawal une cour constitutionnelle juróomeel bi moy ñi nga xamanteni ñi ci kasso yi n'ek ay prisonniers politiques nek même ay otages politiques ndax Macky Sall jaay leen doli duggal leen kaso ñoñu nañ leen génne prison yi ñi nga xamanteni aussi ay exilés politiques lañ nek bitim réew nañ ubbi frontières yi ñi mëna ñibisi

gouvernement bi baral ko leeral ko parce que enquête boobu lu am solo la ndax mbirum enquête bi bu jàllee loolu mooy wane ni élection yi ñu jëm lépp lu mën force de l'ordre yi mën a def Macky Sall dina ci ànd ak ñoom kon enquête Mouhamadou Fallou seen bi mu génnee àdduna ak léegi ëpp na ñaari weer loolu dafa war a leer loolu démocrate yépp ci war a wax nga xamante ni mooy gestion pétrole bi ak gaz ñu koom-koomu réew mi nga xamante ni ci la ñu bëgg a tabax ëllëgu réew mi tubaab yeeg ñëpp ñu ngi jël seen i gët teg ko ci bitim réew mi gestion pétrole boobu nañu ko leeral mu jaar ci yoon mën a delluwaat ci askan wi nekk njariñu askan wi waaye bañ a nekk loo xamante ni njariñu waa bitim réew lay doon ak njariñu tubaab yi kese lay doon ak njariñu Macky Sall ak ñi nga xamante ni ñoom la ngànk ñoom la bokk ngànkal nguur gi juróom-ñaareelu ponc poñ bi mooy li nga xamante ni mooy ndox ak courant gouvernement bi góorgóorlu ci ba nga xamante ni sénégalais yëpp dinañ ci mën a jot point bu am solo la moom mënta jël ay vacances am dem ay vacances ca pendant temps askan wi amuñu ndox loolu xel nanguwu ko xel xel xel xel xel nanguwu ko xel dàq na ko kon ndox mooy li gën a néew loo xamante ni mën na ko lijjanti su ko mënul lijjanti loolu mooy wane ni amatul benn àq amatul benn dayo mën ñu jiite